Cheikh Diouf, euh, membre de la cellule de communication du mouvement MDK. Euh, population de la région de Kafring, population du département de Kungel, autorité religieuse, autorité étatique. les membres du mouvement pour l'émergence du département de Kungel, MDK Tahaoundaouni, s'est réuni ce soir pour perpétuer une tradition. En effet, cette action que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avons commencée depuis 2020. En effet, M. Babou Khadidjian, coordinateur du mouvement pour l'émergence du département de Kungel, a l'habitude de donner à chaque gamou des bœufs dans les différentes cités religieuses qui célèbrent le Maoulou dans le département de Kungel et euh, en dehors, par exemple, de Tibawon. Pour cette année, M. Babou Khadidje a, a fourni beaucoup d'efforts pour que même les autres cités religieuses qui sont dans la région de Kafring puissent en bénéficier, comme dans le département de Malem Odar. Ainsi, le coordinateur M. Babou Khadidje, à travers cette action, compte accompagner les chefs religieux, les chefs religieux afin de leur permettre de mieux accueillir les pèlerins vu l'importance de l'événement. Je ne saurais terminer sans pour autant inviter la population du département de Kungel, particulièrement les chefs religieux, a formulé des prières à l'endroit de notre cher coordonnateur, digne fils du département de Kungel. Pour quitter l'auditoire, j'en profite, profite pour souhaiter à la Oumma islamique du Sénégal de passer un bon maulid. Merci. man la El Hadj bi tey le chargé de communication du mouvement pour l'émergence du département de Koungheul MEDK taxawu ndaw ñi euh, ñi ngi nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci département bi yëpp ak ci biir réew mi Sénégal ci ëtt bi nga xam ne nii foofu leen féete muy ëtt Seydi Hadj si di ñaanal le xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour yàlla yàggal ka fi lool te wéral ko ak mbooleem kilifa diine yi ak xalif généraux yu nekk ci biir réew mi tey nag dañ fi daje comme niñ daan faral di ko defee at bu nekk parce que boobu ak léegi buñ ko xoolee toll na si ñeenti at at bu nekk le coordonnateur du mouvement à l'occurrence monsieur Babou Khadidien da daan faral di def ay ndimbal jëmale ko ci li nga xam ne ni moom mooy mawlit ñi gën ko xam ci gàmmu jëmale ko ci li nga xam ne ni moom mooy ëtt këru diine yi yi nga xam ne ñoo nekk ci biir département bi te di ko màggal mais jëmale ko également ci fi nga xam ne nii ñoo ñooy ay wasilaam di Tiwaawoon mais ci loolu ren dafa am loo xam ne ni moom moo ci gën a yees bu ngeen xoolee lim bi dafa gën a yokk parce que di ko waral am na ñeneen ñoo xam ne nii ñuy dëkkandoo leen te ñu bokk région bi lu mel ni le département de Malem am na ay ëttu këru diine yu nekk foofu yoo xam ne nii bokk nañ ci loolu nag ren coordonnateur a génne ay moyens yu bare bare bare bari pour gën ko mën a def mais gën ko aussi yokk ci li nga xam ne ni moom mooy biir département bu Koungheul pour que kër diine yi nga xam ne nii duñ fa daan jot a àgg pour ñu mën fa àgg ci loolu nag li ñuy wax rek mooy li aada la parce que dañ ko daan def mais dafa ñëw également ci waxtoom parce que gàmmu bi ren ci jamono bi mu ñëw jamono bu métti la jamono bu jafe la te ñi nga xam ne ñooy bëgg a tàntal yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñu si bëri ci suñ gox bi seen loxo du jot seen ginnaaw loolu moo tax moom li mu ko yàlla dénk mu néew mu bari bëgg na ko bokk ak mbokki jullit yëpp moo tax ci loolu dañuy ñaan bu baax euh, ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy këru diine yi bala population bi ñi nga xam ne nii ñoom la yàlla dénk xam-xam ñu gën a ñaanal bu baax seen doom Babou Khady muy doomu département bi xam ne lépp loo xam ne nii lu mu am la bëgg na ko bokk ak askan bi ci loolu nag dañuy ñaan rek képp koo xam ne nii jullit nga ak fépp foo xam ne ni bëgg nga fa dem pour guddi yonent bi salaayu salaam ñi ñaan yàlla yóbbu la si jàmm nga passé mawlud bi si jàmm dellusiwaat sa njaboot si jàmm te lépp luñ ci ñaan lépp luñ si jàng ci ay kaamil ci réew mi yàlla tasaare ko mu nekk ay ngëneel nga yàlla gën a sàmm suñu réew gën fi def jàmm. loolu xam nga biñ ciy waxtaan ci suba si dañ ko doon wax euh, buñ doon mënee xam enveloppe yëpp mu ne yooyu xaj na sax du jar tudd parce que xaalis bu bari la mais bu ñuy xool daal ren mun naa wax ne triplé na ko. parce que boo xoolee maas nag yi rek ngay xam ne li ñu daan joxe ful na ko bu mu nekk ñetti yoon waaw. Demba moom mi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci suba si après dina si ñëw pour ñu xam li mu li mu li mu nag yi incha allah jërë ngeen jëf. aleykum rahmatullah li may njëkk wax mooy alhamdulilahi rabbil alamin ñu ko defoon daaw fekkee ko ren moom mi ko defoon daaw manaat ko ren man lu ëpp lim defoon daaw yàlla na man lu ko ëpp diwén ñi fi teew ren yàlla nañ fi teew diwén kon ñu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi lii baabu di def ci këru diina yi dama dégg ki génn léegi mu ne MDK taxawu ndaw yi man ma ne MDK taxawuma ndaw yi jariñ mag ñi sagal kilifa diine yi kon loolu MDK noonu la taxawee ci ni ma ko gisee ndax mi ngi am contact ak euh, mag ñi ci réew mi mi ngi jël jëriñ kilifa diine yi ci biir réew mi du ma wax région bi nu ma wax département réew mi lay wax ndax lim defoon daaw def ko daaw yéeg def ko daawaat yéeg bëgg koo defaat ren muy lii nga xam ne ñëpp jënoon nañ ak moom lii ku ko gis da nga xam ne kii de li muy def ngir yàlla tax mu di ko def ñim daan jox xañ na xegg fépp yombut waaye fu soree sori nag ku góor góorgóorloo fay dem lim daan def. yokk na ci ren juróom-benni dëkk bu ma tudd sax dëkk waaye dëkk yi mu daan jox ci kër yi diine yi yokk na ci juróom-benni dëkk ci ci département Koungheul ci yi mu daan def wala boog ñeent ci département Koungheul ñaar ci département Maleekotor mu nekk juróom-benn yoo xam ne daawuñ ci bokk waaye ren bokk nañ ci yokk geeta ñi ñaan yàlla yokk ko moom Babou Khady Dieng xëy na sax lii mu def nii loolu la fekk ay waajuram ci loolu lañ ko yar ci loolu lañ yar ci lañ dund ku xam Mouhamed Dieng mu Mouhamed Dieng war ngaa xam ne Babou Khady Dieng doomi alaaji Mouhamed Dieng su defee lu baax kenn du ne guleet baabu ne bi nga xamee ne mu ngi taxaw ci wàllu diine yi daan ko def ba ren dafa ne li ma daan def dinaa ko yokk ngir lan dama seetlu ne président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngi taxawu këri diine yi danaa ko jàppale ci taxawu boobu mu nit boor bi ma ne ba mu xam ne li muy def yëg naa ko te dinaa ko ci jàppale moo tax mu yokk juróom-benni dëkk juróom-benni gàmm yoo xam ne yokk na ko ci ren loolu yàlla ak président de la république cër la moom la ko cërale moo tax mu yokk ci loolu. ñi nga xam ne ñoom laa de wax ñi nga xam ne ñoo de gàmmo si da jógee ci barab da dem ci barab de gàmmo ji nañ góor góorgóorlu xam nga nit ñi ñoom xañ màkk lañ xam. moom lañ fonk waaye jógee fii dem xaj màkk bo ji ci nekk lu ko ëpp tiyaabu ci du ko ëpp am na ci màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lëlee def farata boo ko mënee boo ko defee am tiyaa boo ko defut bakkaar lii nag amut bakkaar xamul leneen def tiyaabo mu yaatu nga ñàkk def tiyaabo doo xam bakkaar doo xam tiyaabo kon fii moo gën a xoyof mais digal ñëpp nag ñi xam ne dem gàmmo ji gàmmoo nag sa kër sëriñ taalibe gàmmoo sa kër sëriñ siyaare fa la neex fa doy fa nga amee ay collaborateur nga dem fa waaye gàmmoo ku ne na ko gàmmoo ji kër sëriñam ñun ñëpp ñu dem gàmmu ji seen ku ne dem kër sëriñam man maa ngi tudd alaaji Ali dëkk dëkk bu ñuy wax ndaxaar Ndakaar a ngi ci commune Maka yëpp ci arrondissement arrondissement waa Wadène ren mooy fay sama ñeenteeli yoon ma fi ñëw dafa jëlee nag di yóbbu Arafa ren danaa yóbbu xale dëkk bu ñuy wax mi dina dégguy te sëriñ booba bu gisee Babou Khady du ko xam Babou Khady bu jisee sëriñ booba du ko xam kon ngir yàllaa tax. sante yàlla julli ci yonent bi <coughs> gërëm suñuy waajur di leen nuyu waa presse bi vraiment di am ci yéen mbégte aussi di leen ñaanal saa suñu koy defit ngeen am teewaay bu ngeen koy fekkee tey yit ci seen bopp yéen it yokku <clears throat> ñu sant yàlla aussi bim ñu mayee ñu fekkewaat ko suñu ñeentelu at wala suñuy at yu raw ñeent yoo xam ne ci yeneen programme lañ ko doon defee yu bokkut ak yii donc di nuyu département de Koungheul di nuyu région de Kaffrine mais di nuyu waa Sénégal Euh, Matar ma sawar si tontu ci laaj bi ma laaj euh, di nuyu sama naataango yi nga xam ne ñoom laa bokkal mouvement bi di leen nuyu ci turu cordinateur mais di jot leen waa département Koungheul région Kaffrine nuyu coordonnateur monsieur Babou Khady Dieng donc Matar lii bu ñu koy def jàppale taalibe yi nga xam ne tey ñoo ngi ci seen ëtti këru sëriñ yi bu ñu koy def jàppale kilifi diini yi nga xam ne rafal ni leen ku leen jàppale ci kilifa yi nga xam ne yàlla jag na leen koom-koomu àdduna parce que jaamu yàlla yit dafa bari ay pason kenn ku nekk yàlla may na la ci sa kàttan ci sa doole ci sa xalaat nga koy jaamu ci côté bu nekk kii nag yàlla dafa def mu occupé lu bëri ci jotaayu kori diine yi nekkul rek gàmmu la ñuy def lu mel nii mais ku ne xam na ne Matar gis nga li ñuy def ci korité gis nga li ñuy def ci tabaski gis nga li ñuy def ci yeneen i activités yoo xam ne njëriñ bi yëpp day delluwaat ci population bi donc fu ñu ko njëkkee rek mooy xool jafe-jafe jeunesse bi yàlla dimbale woon ñi 2021 ñu yëkkati 100 tonnes gerte jox ko jeunesse bi gratuitement accompagner leen loolu it la gis ci këri diini yi xam na tey bu ñu leen di jàppale jàppale bu ñu leen di jàppale dina am lu mu leen apporteel parce que li mu leen di apporteel mooy que ne ku ne xam na ne jamono neexul nga jël sa benn cinq cent mille bëgg koo jëndee benn nag waaye dafal yàlla ñëw jox la nag boobu noonu sa cinq cent mille bi am na ci yeneen bernde yu mu xaj tam mun na sakkanal aussi ëllëg nga mun a gën a préparer waat événement yi nga xam ne moom ngay jublul parce que taxawaay boobu la am ci dafa njëkkee développement ba pare dugal si nag wax dëgg yàlla li nga xam ne jàpp naa ne buñ ci amoon fukk yu mel noonu ci département Koungheul département Koungheul dina am beneen xar-xaram bu bokkut ak bii mu yor tey donc loolu dañ ciy sant ay bokkam parce que ku ne xam na ne lim bu toll nii mënoon na koo def jëmma joo xam ne sama classe gi buñ fi rombee dañ naan seet ko moom lii mais ay bokkam ak i way juróom poussé ko pour que lépp loo xam ne am na ko bu dee cent quatre-vingts yëpp mu delloo ko ci jaami yàlla yi donc loolu yombut te loolu su koy def wax dëgg yàlla kilifa diini yi mu koy defal moom it gis na ñaan yi nga xam ne tey moom la ko kilifa yi di defal parce que fu ñu njëkkee woon ci nombre boo xam ne ñaar fukki nag la wala faneer foofu lañu njëkkee woon waaye gis nañ ñaan yi nga xam ne tey kilifa diini yi ak kilifa aada yi ak taxawaayu département Koungheul bi nga xam ne doomam la ñaan yëpp gis nañ ko ba gis ngeen ren nu mu yokkoo am na yeneeni programme yoo xam ne ñi ngi koy dëgmal gis nañ ne àdduna bi wax dëgg yàlla du mën a Sénégal yëpp bëri na ay jafe-jafe fas nit ñi yéene ci kàttanu yàlla moom ci dooleem ak ci coobereem ci li ma wax mooy SONES bi dina leen gën a bàyyi xel te it mu ngi leen di conseiller di leen digal ñi toog toog bi nag nekkul toog boo xam ne daf leen di wax toog kese mais lu mu def nii tey def ko ci yeneeni yeneeni façon loolu la bëgg it sensibiliser si ndaw yi jàppale jigéen ñi ci ay financement am nañ yeneeni programme yoo xam ne it gis niñ ne tey yoon yi yàqu ci département Koungheul bi dafa bëri te it ñun ndaw yi rek waroon nañee takku. dimbali suñ bopp bu ñu xaar gouvernement bi waaye lu ci ëpp mën nañ koo defal suñu bopp taxaw nañ ci kàttanu yàlla ak yonante bi yenn yoon yi même bu ñu mënul am ay partenaire ci ndigalu président de la république defar réew mi tabaxaat réew mi ci yeneen i jukk tabaxaat réew mi ci beneen façon tabaxaat réew mi ci xar-xaram boo xam ne xar-xaram boobu dina dal xelu askan bi ba nga xam ne vraiment loolu taxoon ñu am tànn ñu tànn ko ci kàttanam ci lu mu wax moom monsieur Baba Khady Dièye yoon yi nga xam ne tey ci ay fan yu néew ci kàttanu yàlla yónnante bi danañu xool yoon yi nga xam ne mën nañu ko deferaat deferaat ko ci poosam ba nga xam ne tey oto yi danañu mën di dem di ñëw ku ne xam ne ne am na ay yoon yoo xam ne tey oto yi bëgg dem gàmmu ji pour ñu génn sax problème la ci moment période bi ñu toll nii ndox mi bëri na. te loolu bu ñu ko xaaree président de la république bés bi mënuñu koo xaaree kon il faut ñu am ay nit ñoo xam ne dañuy am volonté jàppale réew mi waaye jàppale it seen bopp population bu Koungheul foofu lay daanalee samay kàddu parce que wolof Njaay mooy wax ne feccam liir su neexee nday jaa téye ci mbagg ya tey dama leen ciy jiital presse bi lépp lu ñuy def nit ñi di ko dégg di ñu gën a bàyyiwaat xel li ñuy def wax dëgg yàlla nit bi mu doy ba sañ li def si ñi ngi li wax la aussi xam nga mënul daj bu doonut bu suñu borom bi waaye ci déclaration yi nga xam ne tey ñu ngi koy def képp koo xam ne yaa ngi organiser gàmm mu nekk gàmm boo xam ne kat wax dëgg yàlla yonte bi soxla nga ko la accompagner ngir yàlla ak yonent bi ñu ngi lay wax nga bàyyi xel ne lii bu passé nga teel a def demande parce que li ñu yokk yëpp comme ni ñu ko defee nii askan bi di ko dégg. te ñoom it ñooy gàmmoo soxla ku leen jàppale bu lii paatee rek dañuy ñëw def demande jébbal ko ko bu ko defee bu bu bu gàmmo gi ñëw dañ ko mën a préparer parce que mun leen jox li nga xam ne moom lañ yeeyoo donc ñi ngi sant waa département Koungheul di sant région Kaffrine mais di sant senegal tépp bàyyiwuñu kenn di sàkku it nañu ñaanal yàlla monsieur Babou Khady Dieng parce que it nag lu mel nii ñaareel dëgg rek moo neex yàlla Touba nga koy gis wala nga gis ko woon wala nga gis ko Kaolack boo ko gisee ci beneen dëkk département Koungheul ngay ñëw te fii ngay ñëw ci njaboot ak Mohamed Dieng kon loolu lu am am solo la te it wolof mooy wax ne doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan ku ne xam ne honorable Mohamed Dieng lu mu liggéey ci département bu Koungheul waaye lu mu liggéey ci Sénégal it umpu kenn kon bu doomam melay nii wax dëgg yàlla yonent bi du ñu bett mais di gërëm wax dëgg yàlla ki nga xam ne moom la fi kilifa diini yëpp su ma yeboo yebal muy bay Aly Niang vraiment wax na dëgg lii mooy ñeentulu yoonam mu ngi fi ñëw di jëlee ay nag di yóbbu ci këri diine yi loolu it dañ koy ñaanal yàlla moom it mu yàgg koy fekkee te tal ko ànd ak kàttan boobu bay aale ñu ngi lay yóbbante ci kilifa diine yi ñi ñaanal baabu xodi ñaanal ñu mel ni moom ñu yàgg ci réew mi yàgg ci région bi yàgg ci département bu Koungheul parce que gëm nañ ne jariñu askan wi leen maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. trésorier mouvement MDK xaj na su ñu koy wax chiffres yi dina dem ba yéem askan bi mais ci lu ëpp solo mooy nag yi ëpp ni ñeen fukki nag te boo xoolee ni ñu ko organiser ren mooy képp koo xam ne da ngay gàmm ci département bu Koungheul. di organiser gàmm goo xam gu mag lay dan Moussa Babou Khadija dina la jox nak boo yee gàmm gi ngay gàmm it dem na it ba région de Kaffrine wax dëgg yàlla yonte bi bàyyiwul comme département Koungheul waaye dem na comme Malem Hodar ba mu fa jógee it këri diini yu bëri tiwaawoon am nañ fi cir loolu moo nombre bi gën a parce que ku ne xam ne ne wasilam foofu la nekk waaw ci kàttanu yàlla daal ñi ngi ñaan def yàlla rek tax muy def ak yónnante bi ak jàppale président de la république Bassirou Diomaye fay ak premier ministre Ousmane Sonko parce que kenn ku nekk ci réew mi waru ñoo xaar ku nekk bitim réew ñëw dañuy tabaxal suñu réew waru ñoo xaar kenn dañu tabaxal suñu réew réew mi ñoo koy tabax te nag kër balaa nga koo tabax da ngay xam plan bi xamit li nga xam ne tey mooy mooy yi koy tabax am ko te loolu tey doomu Sénégal tey doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi mën nañ tabax Sénégal ba nga xam ne mu mel ni Barcelone waaye bañ a sacrifice seen bopp it Barça wala Barsaq gis niñ léegi li fi xew ci niñ li fi xew Mamadou Makhtar Sarr te loolu wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan soneesu Sénégal ñi toog ci réew mi ñi tabax réew mi ànd seeg ñi nga xam ne tey am nañu expérience am nañu niveau te am nañ jumtuwaay yoo xam ne mën nañu accompagner ndaw ñi maa ngi ñaan ñooñit mel ni monsieur Babou Khady Dieng seen xelaat ak seen taxawaay ñi bàyyi ci xel ndaw yi ak jigéen ñi am na ci solo lool lool lool parce que mooy tax xale yi seen xel mun a daal ñi mun a toog ci réew mi donc maa ngi leen di nuyu yéen presse bi fi teew yëpp balaa diwén ci heure bi yàlla ngeen am ay télé du mën a benn mais yàlla ngeen am ay télé yoo xam ne képp ku bëgg am information ware ci yéen la koy amee ci barke Mohamed barke boroom guddi gi